sant yàlla bu baax a baax sant ko ci num ñu mayee ñu fekkewaat nawet gi sant ko tamit ci num ñu mayee euh, taw wàcc ci réew mi te bari fi euh, di ko ñaan mu doon ndoxum jàmm ndox gu barke ndox moo xam ne lépp li nga xamante ne dina fi meñ ñi ciy sonn fekkee ko ba jëriñoo ko te mu doon njëriñu Sénégal di sant yàlla tamit gannaaw bu ñu booleeg askan gu mel na askanu senegal ñu jiite ko ndax laata muy taw am na nuñ ko doon waajale te nuñ ko doon waajale mooy woo waa Sénégal yépp pour ñu booloo setal suñu réew liñ ci nam mooy ren gi ANACIM moom mi nga xamante ne moo ñuy wax ndax taw dina bëri wala déet def ñoo teel wax ne ren taw dina bëri te ku ne taw Sénégal wax tamit inondation loolu taxoon ñu waxtaan ak sénégalais ne leen pour ñu jóg ci njiitalu ministre de l'hydraulique et de l'assainissement docteur Cheikh Tidiane Dièye ànd ci gouvernement bi yépp ñu doon gaawantu ngir nettoyer canaux yi nga xamante ne ndox mi bu ñëwee foofu lay jaar sénégalais yi nag wane ci njàmbaarte bu mag a mag a mag mag xëy na nuñ ko waajal waajal waajal li xew ren gii nettoyer ak curé kano rek doyu ci dina kon am na ñoo xamante ne dinañ ci loru ñi ci loru kon ñu ngi leen di masaw bu baax laata may jóge Abuja bi nga xamante ne maa ngi doog a wàcc ci laa jokkook premier ministre Ousmane Sonko jokkoo ci ak ministre de l'hydraulique et de l'assainissement Cheikh Tidiane Dièye laaj leen situation bi fu mu toll laajte données yi nga xamante ne taw mi mu wàcc naka la toll ak yàqu-yàqu yi am wala inondation yi mbënn mi fan lañ ko gis pour lépp loo xamante ne war nañ ci war nañ ko baral ci ay moto pompe ak leneen li nga xamante ne mën na gaaw a wallu askan wi ñu gaaw ci taxaw te xam naa ne sax ñu ngi ci ndax docteur Cheikh Tidiane Dieye mi bàyyi tukkeem dellu fekk ji waa Kaolack nga xamante ne foofu lañ njëkk a signalé ndox mu bari ci loolu la taxaw te mu ngi jàppalanteeg mairie bu baax a baax pour ñi nga xamante ne noonu la ñu leen di dimbale gaaw pomp ndox mi te noonu loolu mooy doon suñu taxawaa fépp ci réew mi tamit